naa tàngali bu lii Adama Diouf léegi nag ñaari rouge ngeen sol la sol mooy dansé mooy dansé mooy rouge dansé waaw combat bi dansé la combat bi combat bu neex lay doon du dansé ci yow lay dansé ah, ah ma lay dansé kii mën xam nga man waaw waaw damaa yëgu na bëgg Adama Diouf man maa ko jël combat parce que ñëpp dañ ne dafa mën a bëre te maa ko tax a bëre hmm. caat booy bambara moom maa ko def xam nga damaa bëgg a woon ah, dama mën a du question xeex laa mën sereet laa comme moom ñu bokk sant daxoo maa bëreetuma daxa xeex li neexul waa neex na wuli mais ginnaaw ay jàmm wuli combat bi vraiment boo waxee ne yaa ko engagé gëm ko ndax di nga doon wax ne Adama sama xarit nag kooru maak fay kooru rek sa ñaar doom ñooy boole nag combat bi noo tëral di nga bàyyi maak wuli combat bi lu ma ci bëgg a wax mooy moo di ne combat bi wuli bàyyi sa yooyu nag door ci ginnaaw saako fii Sénégal la. boo waxuma loolu. man kay boo dawee fu mu neex nga wax sa wax sa mbaaxuwaay. sa baab bi daa dee sax mënuma wax wax sa mbaaxuwaay wañu la dara. wala kenn mësu laa gis ngay daw di génn ci saako yi. moo tax ay yeneen ñi nga xam ne du ma tudd tur ñooñu ma leen. ba nga waxee man nga bëgg man ku ma feetoo ma feetoo la mais combat bi nag bu yaakaar na yomb nag du yomb de. ay koros yi laa lay foog fii bëgg rek. dama lay <laughs> dama lay foog xoolal combat bi du yomb de. Nigeria yaram teel naa tàngali bu <laughs> lii Adama Diouf en direct léegi nag. dégg loolu ñaari rouge ngeen sol sax kii rouge la sol kii sol rouge. mooy dansé. mooy dansé. mooy rouge dansé waaw. combat bi dansé la. combat bi combat bu neex lay doon. du dansé ci yow lay dansé. ah ah kon ci ma lay dansé. kii maa ko mën xam nga man. waaw waaw. damaa yëgu na bëgg Adama Diouf man maa ko jël combat bi sama bopp parce que ñëpp dañ ne dafa mën a bëre te maa ko tax a bëre. Hmm. caat booy bambara moom maa ko def xam nga damaa bëgg a woon Sénégal yi ne dama mën a bëre. du question rek xeex laa mën. Sénégal laa comme moom ñu bokk sant daqoo maa bëre te maa daxa xeex lii neexul. waa neex na wuli mais ginnaaw ay jàmm wuli combat bi vraiment boo waxee ne yaa ko engagé naa ko ndax di nga doon wax ne Adama sama xarit la ndax Kooru Maak Faye ah, Kooru Maak nag sa ñaari doom ñooy boole nag. combat bi noo tërati nga bàyyi maak wuli mais combat bi man ci oto waaw lu ma la a wax mooy moo di ne ah. combat door ci ginnaaw saako fii Sénégal la boo waxuma loolu amul man kay boo dawee fu ma neex nga wax sa wax sa mbaaxuwaay sa baab bi daa dee sax mënu ma wax wax sa mbaaxuwaay wañu la dara wuli kenn mosu laa gis ngay daw di génn ci saako yi moo tax ay yeneen ñi nga xam ne du ma tudd tur ñooñu ma leen ba nga waxee man nga bëgg man ko ma feetoo ma feetoo la mais combat bi bu yaakaar yomb nag du yomb yomb de ay korosi laa lay fokk fii bëgg rek. dama lay dama lay sonn xoolal combat bi du yomb de.